tey nag dinaa leen wax yi siiñ ngeen bàyyi ci xel ci xale yu jigéen yi surtout yéen góor ñi war a jël soxna da ngay nekk ak xale bu jigéen bëgg ko ngeen commencé relation bu ne ko ça la lu ça va un rek xam nga rek nga ñëw ni ko lan moo tax ça va un mun la hmm, tey de moom mooy loolu damaa amul crédit bu subaa mun la hmm, sama cousine bi dañ koy marié su ma war a dem nag def ba mu baax ginnaaw suba yee sama cousin bi jabar ji dafa am doom fa laa war a dem di xaar nga waajal ko mais bu ginnaaw suba mu ñëw ni la sama yaay dafa feebar waa sa yaay dafa feebar mais yow am sa papa lan moo ko war ci jabaram hmm. ay xeetu jigéen ku ci dugg di nga màtt sa loxo wiccax ko di jooy foo du gisee ku la ko fompal dinañ la jooyloo guddi jooyloo la bëccëg te doo mujj fenn fenn fenn fu nga dem mu dem